li de waroon daje bi mooy développement de Touba nit ñi seenu dund ñoom mucc ay dund gu dund gu principe àddina sépp tout Sénégal gépp mais ñu tàmbalee ko ci suñu dëkk ndax yéen bi sallallahu alayhi dañoo def jàngal nañ al aqrabul ula tàmbalee ko ci suñu dëkk bii di Touba jublu ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba tax ñu créé mouvement d'organisation pour servir Touba waaye bu ñu sant yàlla jullit yi dem sallallahu alayhi wasallam ñu sant bu baax Serigne Alla Sylla ndax tey fépp fu ci fuñ ci toll ginnaaw yàlla mooma ma fuñ ci toll tey ginnaaw yàlla moo moo ñu dooleel tey bañ agsi fii ñu man a agsi tey moo tax ñu créé mouvement d'organisation pour servir Touba fas yéene rassembler jeunesse bépp góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina mouvement yi ak ONG yi ak ak ak maire yi ak ak daayira ak mbootaay yi lépp parce que aussi Touba bu mucci ay tey ginnaaw yàlla mën nañoo wax ne tey mouvement yi la ak ONG yi ak euh, daayira yi ak mbo ak mbootaay yi kon ñooñu tey ñu jar a jàppale lañ ñu jar a waxtaanal lañ ñu jar a lëkkaloo lañ moo tax tey yàlla alhamdulilah ba ma ñëpp yàlla jot ba ma ñëpp ba yàlla def ñëpp jox ma bopp tey xam ne tey euh, Touba jëm ca kanam ñu ngi ci seen loxo ñu bootu ñëpp ànd ak sama ginnaaw Fatou àll si àll si la teg ma loxo ñu fas yéene ànd ngir développé Touba liñ bëgg Touba mooy ma Touba évoluer ni nga xam ne noonu la dëkk yëpp évolué Touba évolué noonu ndax tey boo boo leen xoolee mbooleem euh, réew dëkk yëpp day am ay ay ay barab yoo xam ne ay société la ay société la yoo xam ne day day day recruter jeune bi di leen jeunesse bi di leen jël di leen employé comme emploi di leen fay loolu day wàññi chômeur te loolu amul benn amul Touba ndax ñu yëpp dañoo boycotté Touba loolu bés fas yéene nañ ko xeex ngir di leen recevoir di leen dalal di leen tatagal ci fi di liggéey ngir maanaam loolu day day day suq day suqali dëkk bi mais aussi day su day suqali day suqali aussi maanaam euh, peuple bi jumtuwaay dafay sooxe bu baax a baax et puis barab nga xam ne bari na Sénégal bari na Sénégal yoo xam Dakar ak yeneen régions yi yoo xam ne dañuy financé jeunes yi di gunge góor ñi ak jigéen ñi muy ak ak mel ni am Prodoc yu mel noonu ak APEX yi yu mel noonu FES bi naata Sam Mbàkke jiite mi nga xam ne moom la ñu tuddee woon tey euh, jour bi yooyu benn amu ci te yooyu dafa jaaru tey mu am ci biir ngir mën a soqale gunge jeune bi parce que mën nañoo wax ne tey deuxième ville du Sénégal te moo di Touba loolu tax mouvement bi daal mouvement bi daal kulli xaalin day jéem a xool lépp loo xam ne lu baax lu mën a suqali dund aadama mën a suqali dund doomu aadama mën koo maanaam euh, rattaxal ñu fexe ba loolu am ci biir bi mais aussi lépp loo xam ne également dafa amul dafa dafa dafa nekk ci biir dëkk bi wuru fee jariñ bokku ci ñu fas ci dëkk bi te lépp loo xam ne maanaam aussi war naa mën nekk ci dëkk bi war a a def fonction fonction war a servir dëkk ci servir bi dara dëkk bi lu mel ne commune bi ñu fexee ba loolu servir dëkk bi parce que Touba may seetaan dugg naa ci mbooleem gox yi ak gox goxaane Touba tey bu doon ab jëmm taxaw ma wax ne jëmm ji lu mu rëy rëy rëy te taap bu doon métti sax ci jëmm ju mu mën a sori xam naa fa tey waxtaan naa mbooleem gox yi ak gox tey ku gis maanaam di daje tey ci salle bi te xam ne lii du caaxaan lii du caaxaan la xam nga doomu aadama balaa soxla dara day rey nit bu du am dara dara xel nekk ci dara lu lu lekk xiif lañ a def ñoom def ko seen jàmm da ngay gis ñoo xam ne seen dépense toute la journée benn mëtul sax 1500 te 1500 yi ko toujours lañ koy seen def lu toll ak famille toll na famille cinq cent seen seen ndékki trois cent francs lay tollool seen añ boo ko xoolee lépp mat tolloog maanaam mille tolloog maanaam maanaam tey maanaam six cent sept cent seen reer dañ koy takkale parfois ñu togg sundi parfois ñu togg ruy parfois dañuy xam ne dañ ko kii moo tax maanaam euh, sancaan yi lool wax dëgg yàlla ñëpp a sonn waaye sancaan yi dañ cee rawati soxla soxla nañ ndox soxla nañ courant soxla nañu bare bare waaye xiif aussi moo lay gën a sonal parce que ñoom boo toggee ñoom boo xoolee seen xar kanam xam ne ñii wax dëgg yàlla ñu sonn lañ ci naan aussi ñu yeeyu jàppale lañ ñun amuñu allié ci cadre politique mais suñu alliance ci cadre cadre principe la aju suñu alliance ci cadre principe la képp koo xam ne maanaam pare nga ngir gunge ñu ci suñu objectif suñu ambition ñun pare nañ ngir jox la loxo jàppale la suñu képp lay kàttan ba nga yëg jàppale jàppale nañ la mais également moom dañ koy sant bu président de la république li ñu koy wax mooy euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm ca xam ne maanaam tali yi mu dugal Touba depuis 2012 ba léegi bépp tali bu am fii Touba mi ngi fi hôpital bii muy sampal gis nañ ko bu mag def ci centaine de milliards centaine de milliards indi fi ay opét ay ay ay ay ay euh, def ay ay brigade de gendarmerie ngir renforcer sécurité bi te loolu sëriñ bi da koo ñaanoon mu jëm ci biir ñooñu di ko wax ne ko na gën a gestuwaat askanu Touba askanu Sénégal gépp mais nag ñu koy tàmbalee ci suñu fii ndax al aqrab wala lu ñu salaam jàngal na gën a gestuwaat peuple Touba gën a bàyyiwaat xel ñi nga xam ne ñu ci biir gox yi ak gox goxaan loolu nag li koy dim li koy li tax mu mën a nekk mooy mu bàyyi leen xel jéem xool lépp loo xam ne war naa am ci dëkk bi ci amu fi mu indi ko ci dëkk bi yaakaar na loolu njëriñ loo xam ne dana law bàgg ci biir dëkk bépp